bismillah yasimi sani yallaahu qad ibtadaatu bi nasmi gure yallaahu bismillah yasimi warahmatullah mbokk yi ñoo ngi santaan ñëpp rek comme ni ñu ko waxoon sànq rek ñoo ngi baxandaat ba léegi e, di bokk si pàkki si Abdul Xaadir Mbàkke ku ne xam ne ñoo ngi waajal màggal gu tedd gu mag googu di màggalu si Abdul Xaadir ñoo ngi waat fii ñëwaat ci borom dëkk bi ndax dañuy wax sax booy dugg da ngay jaar sa bunt ba te ku ne xam na ni mm, bunt bi mooy sëñ Touba Mbacke mi ñu jàkkaarool di borom dëkk bi bokkoon ci ñi nga xamante ne ñu jege na jege ñaayu sëñ Abdou Khadir lañ woon kon nag euh, ñoo ngi fas yéene tarante moom ay kaddu euh, barkeelu si dëkk bi. xam naa ne liñ koy jëkkalaaj rek mooy euh, ginnaaw bu ñu sànnilee ay tuuti Cheikh Abdou Khadir rek ab soññe ñu door a dugg si cosaanu dëkk bi kes laay lekk ak taxawaay bi kon sëñ bi ñu ngi leen nuyu baax Mbàkke Bàll. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ñaan ci yéen jiital waa kër sëñ Muntaxa waa sëñ Tuwaay jiital waa kër sëñ Abdu Xaadir yi tàmbale sëñ Cheikh ba ci sëñ Bassirou ak soxna jigéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara nekk ci waajtaayu màggal sëñ Abdou Khadre bokk yi fi di ci am ñi laaj suuf yàlla dañ ci tontu lañ xam. jërëjëf macha allah nuyoo bi am na sol lool. comme niñ ko waxé rek ñoo ngi ci yu magalu Cheikh Abdou Khadir xamna ni sax bu ñu mënon na léral ndax ñu bëri bëri dañuy dégg magal Cheikh Abdou Khadir gi rek waye xamuñu lu ko waral lan mo sabab magal gi ah magal gi mom lañ wax ne mom bi nga xamee ne sëñ Moodu mi ngi koy top toppam li may sëñ Saliou sëñ Saliou moko tanal tànnal bis bi nga xamné da ci cee won aduna bis bobu mu won aduna nga xamné ne sëñ mag moko waxal bobu ne nañ ko yaatal. balaa turwaa balaa joxe tur bi wax ko moom Thierno ci loolu uh, moo waral màggal gi dikk ci bis bi mu ñetti fan yi tam xarit. Hmm. kon yaakaar naa dégg noonu nañ ñun ñëpp rek màggal gi mooy bis bi sëriñ bi feeñee jamono moom lañuy màggalal mu ñetti fan yi kii uh, bi tamxarit gi kon nag xam naa ni dëkk bii di baax Baxdaad daal buñ sañoon nga baax ñu si tuuti cosaan baax beeg waaw. cosaanal dëkk bi Baxdaad day ci gox yi nga xam ne ñi nga xam ne ni leen ndindi ak tindoodi ak aliya ak daaru karim nañ nañ amee woon ndigal ca loola ca la sëñ bi joggi mooy sëñ mun Musaa ak sëñ Fàllu yi nga xam ne leen joxoon ndigal ñu dànd jumaa ji di fi liggéey di julli ji loolu moo sabab moom it mu wut ko bërëb bi fii bërëb bi nag mu ngi tolloog diggante aliya ak euh, tindoodi ak nayde ci diggante boobu la waaw ngi diggante mook jumaa ji mi ngi nekk cinq kilomètres féete ko ci càmmoñ da jaar si biir Gédé jàll si Baxdaad cinq kilomètres diggante bi fii fii kër gi nekk nag am na daara jàng woon ca kaw ca penku fi ñuy wax daxaar foofu la sëñ bi njëkkoon a nekk daara daara ja ne fa la daan liggéey bu yoor liggéey foofu ci daxaar gi léegi nag daara ji foofu la nekkoon waaye bi ñuy wut kër gi nag euh, fii ci sow lañ ko wut daan diggante bu ay deux kilomètres un kilomètre cinq cent foofu lay toll feet sow naka jekk nag moom ci biir Gédé ñi sëñ bi nekkoon Gédé rek nan la nekk bi mu koy sàkku itam noonu la ko sàkku biñ ko koy joxit noonu lañ ko ko joxee boole kook li nga ne moom la ko sëñ Mourou Moussa joxoon ci penku ak li nga xam ne moom la ko waa Gédé yi jeex ci sow ñu boole ko kër gi nag mi ngi ko def ci li woon ci Gédé 69 la ko la ko la ko sànc la ko sànc euh, bi mu ko sàncee itam kër gi njalbeen gi 40 mètres carré la woon bi mu koy liggéeylu 40 mètres carré la bi nga xamee ne dem nañ ba 72 ci cat la euh, bay dugg ci 73 ñu yokkulu ko def ko quatre-vingt-dix mètres carrés boobu lañ ko yokk def ko kees yi trente mètres carrés mu nekk juróom-ñeenti kees waaw sëñ bi féete wetu ndeyjoor waa kër yi nekk féeti càmmoñ donc yi féeti penku sëñ Muudu newoon ci biir féete wetu càmmoñ bi ci penku dëkk bi yokk sëñ Muudu wutal ko wilaas ndax booba jafe-jafe yi ni baykat yi def di joxe ay jiw di kii tax na ba bu nekkul village du mën a am jiw booba daanaka Tuubaa benn kii la mu def ko lu ma téeméeri kër def ko village ci wàllu dëkk bi itam daa doon dëkk boo xam ne boo sëñ bi fonkoon lool fonkiinu baatin ndax li gën a jafe nga xam ne fu mu mosaan nekk ma ngi ko fay sàkku fii la ko yàlla defal mu feeñ ko fi feeñale ko fi mu yonent bi salaahu salaam moom fu mu nekk ci loolu la nekk ci topp sunu si yonent bi salaahu salaam di ko doxee farata yàlla tax na ba laata muy muy feeñ fii fonk na fii di ci dox di ci dox di ci dox ba yàlla. feeñalal ko fii waaye niru na ne séenu woon na ko fu ne itam ah, xëy na fii day fi nga xam ne am na sañ-sañu bu wax ko am na sañ-sañu joxe ci ndigal ñu koy siyaare waaye sëñ bi ci wàllu sellam ak doxinam doon na koo xam ne dëkk ak yonent bi salaahu salaam waxtu wu ne mën na ko ndax lépp luy tax nga jege ko luy tax nga nekk moom ma woon ndax liñ xam ci wàllu doxalinam musuñoo dégg wala ñu gis ko ko doxee noonu ci digg doomu ci roy yonent bi salaahu salaam ndax eh, nit bari na ñoo xam ne daañ daañ di jaamu yàlla ba dem ba gis seen bopp eh, dem ba gis loo xam ne dañ jàpp ne ci la waaye sëñ musu la mel neneen moom ni mu la mel jéegu bu mu jógi na ko yonent bi daal jégee la ko jégee te du ko weesu daraja buñ ko jox lu mu rëy rëy daraja ba du tax nga xam ci moom ne jot na ca loola ndax digg doomu moom ci moom la yem moom moom ci moom la ndax jaamu yàlla yi muy def yëpp bu koy def day digg doomu amul lenn loo xam ne lii dana ko ëppal amul lenn loo xam dana yées lu ne bu jotee waxtu wum jot rek la koy def ndax euh, nit ñi nit ñi wax ci wàllu euh, julli waxtu yi juróom ñuy wax na euh, laruur yi fii la tàmbalee yem fii laruur yi fii la tàmbalee yem fii mos na koo gàttal ne laruur yi ci lu dul lor rek la mm-hmm. saa yoo jekkee waxtu yu dugg foofu la yem kon nag ñu bari duñ ko mën a déggee noonu ndax mm-hmm. Mm-hmm. dafa jafe mm-hmm. waaye moom lim li li nga xam ne moom la xam mooy waxtu waxtu la bu jotee amoo benn lu la gàllankoor loola mooy waxtu noonu la ko daa doxee itam muy taw muy liw muy tàng ñu jamono mën a melit ñooyam ci ni muy li muy def ci jàkk ji lay jullee ji naafila ci néegam bi mu xayma boobu bi nga xamee ne samp na ko itam mbooleem mm, liggéey yi mu daan def yoor-yoor foofa la ko daan def léeg-léeg mu fanaan fa itam léeg-léeg mu fanaan fa léeg-léeg matlab mel nii la ma daan wax na yóbbu ah, bu ko defee ñu defar xayma boobu ah, ab baas la rek baas rek ab sagar la woo xam ne dañ koy tànt amul amul lu ko wër ba taxoon na am na jamono ma defal ko miir su tuuti su gàtt nii ndax moo koy boo xayma man bañ ko sampere la ma ko jox ba nañ fi bàyyi ko itam maa ko yor bi ko defee miir bu gàtt bu ndikkee dem na ma loo jublu ci li ma ne ko ngelaw li euh, day def bu bu boo lalee der bi ngelaw da koy sëkk. mu ne waaw loolu baax na waaye sëñ moom euh, ci wàllu jaamu yàlla ku ne fa nga xam nga xam bismillah yaasimi sehni yàllaw xad ibtadaatu bi nafsi duri yàllaw duri ñu diiw judoo